boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bes fu ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo ngir bëgg jege ay am digital store yaatal na bu baax a baax réseau am teg ci nag ubbi na showroom bu bees tax te Colobane immeuble CMS jàkkaarloo caserne Samba Diéry Diallo digital store indi na leen ay xeetu produits électroménager ay téléphone haute qualité yu mucc ayib et matériel informatique yi xew ci jamono. Digital Store mooy représentant exclusif bi fii ci réew mi marque bii di marque Crosscall tey defar téléphone portable yu dëgër yi ngeen di dégg yu ndox mënulul dara di ci gën a neexati mooy que téléphone yooyu dañ leen di garantir ñetti at ba juróomi at Digital Store am na service après vente ci Colobane buy liggéey 24 heures sur 24 7 jours sur 7 ak équipe mobile bu xarañ bu jàmbaare buy dem nag fépp ci Sénégal service après vente boobule day am ak yéen ay contrat d'entretien di leen di gunge ci seeni montage seeni réparation wala entretien appareil bu mu mën di nekk Digital Store votre partenaire de référence téléphone bi moo di 33 842 61 38 site web www.digitalstore.sn ko doon laaj yegg si na TQG Touba Quincaillerie Générale ñu gën ko xam ràññee ko lool ci njaayu matériel u quincaillerie de qualité egg na Kër Massar showroom bu mag ca Kër Massar showroom bu mag mag a mag mag ca Kër Massar lii lu rëy la lu doomu réew mi def ca Kër Massar soxlaatu leen dem ba Dakar pour uti matériel u quincaillerie yu baax TQG Touba Quincaillerie Générale Kër Massar yéen la fi nekkal lépp lu ngeen soxla am na fi peinture sanitaire décoration. décoration intérieure serrure de qualité matériel de travail et d'ouvrage am na fa di ci woo waa Kër Mbay Fall waa Jaxaay waa Tiwaawan Pël waa Fass Mbaaw wa Kër Njaayloo waa Tëngéej bu kenn demati Dakar di wuti matériel u quincaillerie Touba quincaillerie générale egsi na Kër Massar du yéen a ko doon laaj li ngeen bëgg rek ci la ñu dox lii daal seen yëf la yéen waa Kër Massar ku ci bëgg lu la leer wooteel ci 33 879 28 28 wala 78 206 88 88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 ak bis bii jub ak ya ca topp féeg fan yu néew néew jullit yépp ñu ngi séentu bis boo xam ne bis bu màgg la fa sunu boroom doonte bis yi ko jiitu yépp a tedd te bari ay tuyaaba lool bis bañ ca tànn mooy li ñuy yow mu nax ak Iidul Adha yowmu naxr ñi ko gën a moom mooy ñay xaj Makka fii mu nekk am na xeeti aj yoo xam ne ku ca armal bu bis bii dikkee war naa loj lañuy ñuy tudde hadiyu ba ca gën mooy gëléem nag topp ca xar topp ca waaye bu dee nun ñi nga xam ne dañuy tabaski bi ma mujje moo ci gën muy xar bëy nag gëléem toor caa topp xëdd yu ab yaxam mi ngi ci alxu bu dee ñuy tabaski nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku ajiwut makka defut armalut aj guy tax du rendim hadiyu maanaam daal aji wut tabaski sunna su dëgër la ci moom loo xam ne ma nga tàmbalee ci Seydina Ibrahima ba ci moom mii sallallahu alayhi wa sallam mi yàlla wax ne thumma awxaynaa ilayka an ittabi millata Ibrahima xanifan wa ma kaana min al mushrikin kon sunna su dëgër la soo xam ne si lislaam dana xool dana xeelu xeelu aw xoolin la xoolinu jëppi ku ko mënta def ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku tabaski xar mam cay rendi da ngay dégg ñaan rey xar ab julit du rey day rendi xar mam cay rendi wala bëy wam cay rendi wala xar mu jigéen mam cay rendi bu amul xar mu góor ak tàppaange mam cay rendi bu dee bay noona kawar gu ci nekk yàlla dana ko ca bindal tuyaaba ju muntoone amee fenn waaye dana ko ko dencal foo xam ne it yàq du fa àgg am na nag ay charte moom xarum tabaski moomu ñett la ba ca jëkk mooy du xar mu la neex rek ren di tabaskee ko wutal nañ ko ab boo xam ne bu ca àggagut matagu ko bu ko weesoo nag ca lay gën amut fu mu yem bu ko weesoo amut fu mu yem xanaa mu dema dem ba màggat lool ba amutut ay suux siditi kese ragg wopp boobu sax ci sàrt yi la bokk waaye mën na ko yóbbaale waaye daal bu dee kuy tabaski am xar lu mu néew néew la ca siiwoon mooy juróom-ñetti weer waaye am nañu demaat ba wax ne bu amee juróom-benni weer toll na mu war a toll baax na su ko yéesee nag nu mu mën a toll mat a am tabaski bu dee ku amul xar mu góor wala mu jigéen wala muñ tàpp mu wut béyu góor xanaa béy moom daa bokk ci jur gi moo ne waxoon nañ ne jur béy gàtt na waaye jur gi la bokk waroon naa am nag ñu joxe misaal jël béy wu ma tom tabaski rendi ko ca penc ma ñëpp gis ko ñu xam ne béy ci tabaski la bokk su amul wu ji wu wut wu jigéen wala wuñ tàpp waaye moom faw mu am am at at mu mat sëkk léegi nag topp ca gëléem topp ca ku munta am xar munta am bëy nu muy amee nag mën naa jaaxal mën naa jaaxale waaye du tee su ma nee am nag nag wa muy tëbaskee na am yaari at yu mat sëkk bu dee gëléem na am juróomi at yu mat sëkk mooy bu njëkk bi na matum tabaski ñaareel bi te junjoon naa ko mooy na mucc ayib bum làpp bum làggi bum doon mel ni xel bum doon kawaru kese kawar gën a làpp ca moom nga xam ne mënoo mën ngaa waññi kawaram yi ñaata la ndax jeex déedéet ci misaal mu gën a jege képp kuñ ne ci woon xar yoo yaay ca biir dama tànn ca ma la gënal ma may tànn moom matam tabaski moo xam daa amum tudd wala daa day da ko da ko jubloo tos waaye daal du tànn daal ma ca yaakaaruma mu tànn ca te loolu yaakaar ju ya sëñ daa doon wax naan jortul ma njóg la xar ya du fa ne gàññi gàññi mooy tànn moo xam ne saa bu ko génnee ñu ne loo jublu ci li nga tànn xanaa delloo ko kay jël meneen xanaa la ñuy wax ndax yéem ko moomee mooy tànn nag moo matam tabaski mooy mu mucc ayib dara sikku ca ma gis-gis bu baax cëram yam benn ca mu wér pelag soleesu ko ba mu ne dàdd xoluñu ko itam waaye ñett ñette sartum ñetteel ba mooy duñ ko ne tabaski rek mu wut moom moom war a wut bëgg lu baax ba tax mu ne na ko far defar tay déedéet daa am waxtu day nag ba ñu julli ba sëlmal ba ka doon jiite wax nit ña ba noppi li ci ëpp sax moom danay faral di def misaalum joxe ndigalul ku dem mën nga koo def ndax bari na si ñoo xam ne fañ doon jullee fa la ñuy leen di indilee ab gàtt ñu daal di koy rendi foofee kon lu way yàkkamti yàkkamti ne mu ñu ndiku lu néew néew noo néew boog bu dégluwut mun taxaar lañ fay waxit ndax am na ñoo xam ne la ñuy lay fañ jëm daa sore te la dugg day jafe waaye déedéet mag lu ko tax a jóg daf ko war a wax loo jar na nekk ba gis ne ka jiite rendi na ba noppi muy bisu tabaski muy bisu fukkeelu fan bi ci weer wi waaye nag tekki wut ne su rendi wut saa ca saasa rek amutum tabaski man nay wéy di wut bu jant ba jant bi sox bu xëyee ca yoor yoor waxtu wañ rendi war mu rendi muy benn fan bi su ko amut nay wéy di wut ba ca démb barki démb la woon tabaski gi muy ñaari fan nuy wéy di wut bañ ne démb barki démb barkaati démb la woon tabaski muy ñe muy ñeenteelu fan ba maanaam bisu tabaski ak ñetti fan gannaaw bi la gën nag mooy waxtu ko nga ko amee mu bañ a gaaw ne na ko dab yi waaye na nekk ba yor yor mu rendi ko am na nag ci daara yi lislaam yi ñoo xam ne nee nañ rendi guddi dagan na waaye li gën a not fii daal mooy rendi bëccëg waaye bokk yi ku rendi am xaram ba noppi it sañ na caa jëfandiku moo ko njabootam waaye keneen kum ca joxit ab cër te bañ koo tudde cërub njëkke la wala cërub bàjjan la wala cërub tànta la wala cërub nijaay da koy joxe rek ngir yàlla waaye du sañit kay koy feesal bu fekkee yambar mu munta fees la wala toll na ni ñëpp waaye rëy naa tiim am xar di ko fees ka ko koy feesalit su nangoo mën naa waxaaleeg moom ci nangam nga may feesale waaye sañu ko ne baat bi ngay yóbbu tànk yi ngay yóbbu su ko soobee nag bu ko feesalee ba noppi ba mu fay ko ci xaalis su ko soobee mu dagg lu am solo jox ko ci coobare coobare ñu xam ne daal du benn fan bi kese ku ko amut ba bis ba ñëwit nay wéy di wut démb la woon tabaski barki démb la woon barkaati démb la woon su xasee ba jàll nag yàlla dogalu ko na néegaat ba déwén te ñaan yàlla fekk ko waaye foofu tam ñu potoxlu ci ne am na ñoo xam ne mën nañ koo am ba am ko waaye ren dañoo takk soxna moo tax duñ tëbaski ni ñëpp waaye dañuy yóbbu xar ma bu tëbaski gi jàllee ba yàpp jeex ci kër gi jeex jeex ci kër googee ñu yóbbu ko fa nag loolu du diine ku ko mën na ko defar ci ñetti fan yi ñu wax ba ci jëkk mooy ba ca gën mooy bu jëkk ba ca topp topp ci ba ca topp moom la ñetti fan yooyu moom la suñu borom di wax ne ci jamaraat yi wadkuru llaha fi ayamin maadudat fa man fi yowmayni fala isma alayhi wa man taaxara fala isma alayhi ñay sànni jamara tey la fukki fan daa daa war a delluwaat bu subaa mu xëy sànni démb la woon tabaski bu ginnaaw subaa mu delluwaat bëkk démb la woon bu ko neexee mën naa yaweeku waaye nee na it kum soobit mën naa nekk bañ ne ginnaaw barkaat yi démb la woon julli gi fa man fi yowmayin fala isma alayhi wa man taaxara fala isma alayhi tabaski gi da koy topp moom la ñuy tudde ayaamu tashriq lu waay bëgg-bëgg lu baax lu mu ñeme-ñeme koor su ca wooree def na lu ñu ko digalut niñ ko teree mu woor ci bisu tabaski gi wala bisu koré gi bis la yoo xam yonent bi sallallahu alayhi wa na bisi lekk ak naan la lekk ku dagan ak naan ku dagan ak tudd yàlla kon jullit nañuy fexe ba di ci tudd yàlla lu baree baree bari tudd yàlla nag bi ma tudd bi ma wax léegi bokk na ci allahu akbar laa ilaha illallah alhamdulillah amut waxtu saa bu sëlmalee bu fekkee da ko bëgg a sàkkal waxtu wu mu koy defit saa bu jugee ci ak julli wala mu naafila ba nag mën na koy wax ndànk ndànk te bañ caa sonal nit ñi nag bañ di ko xaade ndax ña daan bay bu jëkk di kañu daanañ wax ne takkaay bari yëngu njàmbat bari sàppee allahu akbar la ilaha illa alhamdulilah moo gën lépp waaye nag di ko yuuxu ci kaw ba bay tànqal nit ñi nag santaani wuñ ko itam na koy seeral yàlla mi koy dégg rek kon boog bis yii bis yi allahu akbar la laa ilaha illa allah ak alhamdulillah na ci ñépp góorlu ndax wenn yoon lay ñëw ci at te bu demaatee déwén lay dellusiwaat kum raw raw na ko ñi nga xam ne dañ fay nekkoon daaw di ko fekkee yàlla na yàlla yéen a fekk wuñ ko ran nun ñee ko fekkee it yàlla nañu yàlla dimbali bañ mën koo màng nañu ko nañ ñu ko sante ndax te lee ñu am ca lañ ca digge bis yooyu nag am na ay alxuraan bu ci wàccoon boo xam ne li tax doon lekk wàññi ëpp a def ci bis yii la yàlla waxoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca ajam googee nga xam ne li ëpp ci lim bëggoon a wax te jotu ko woon a wax ca la ko mottilee ca la aayam alxuraan ba wàcce woon al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu aleykum nicmati wa raditu lakum al islaama diina ca la waxe woon na it ndax matal naa ndax jotali naa mbooloo mu bari mbooloo mi diriir ah kay nga mu ne wax naa lañ ma waxoon ñu ne ko ba mu jot sëkk mu ne ndax dégg ngeen ñu ne waaw mu ne sama jaan wàcc na ku ci jëfe jaanam wàcc ku ci jëfe wut man sama jaan wàcc na ca la mujj Màkka ci ay gët ñu di ko gis sallallahu alayhi wa sallam yàlla noonu defal dégg ak topp te musal ñu ci seytaane ki pakkam te fekkaloonu ko te yàlla buñ yàlla xañ yool ba yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iri almuslimiina amin ajabani rabb sama wala yéen a ko doon laaj yegg si na TQG Touba Quincaillerie général ñu gën ko xam ràññee ko lool ci njaayu matérielu quincaillerie de qualité egg na Kër Massar showroom bu mag ca Kër Massar showroom bu mag a mag a mag a ca Kër Massar lii lu rëy la lu doomu réew mi def ca Kër Massar soxlaatu leen dem ba dakaar pour outil matérielu quincaillerie yu baax TQG Touba Quincaillerie Générale Kër Massar yéen la fi nekkal lépp lu ngeen soxla am na fi peinture sanitaire décoration intérieure serrure de qualité matériel de travail et d'ouvrage am na fa di ci woo waa Kër Mbay Fall waa Jaxaay waa Tiwaawan Pël waa Fass Mbaaw waa Kër Njaayloo waa Tëngéej bu kenn demati Dakar di wuti matérielu quincaillerie Touba quincaillerie générale egsi na Kër Massar du yéen a ko doon laaj li ngeen bëgg rek ci la ñu dox lii daal seen yëf la yéen waa Kër Massar ku ci bëgg lu la leer wooteel ci 33 879 28 28 wala 78 206 88 88 Touba Quincaillerie Générale notre force la qualité. ngir bëgg jege ay clientam digital store yaatal na bu baax a baax réseau am teg ci nag ubbi na showroom bu bees tax te Colobane immeuble CMS jàkkaarloo na Samba Diéry Diallo digital store indi na leen ay xeetu produit produits électroménagers ay téléphones haute qualité yu mucc ayib. et matériel yi xew ci jamono digital store mooy représentant exclusif bi fii ci réew mi marque bii di marque Crosscall tey defar téléphone portable yu dëgër yi ngeen di dégg yu ndox mënulul dara di ci gën a neexati mooy que téléphone yooyu dañ leen di garantir ñetti at ba juróomi at digital store am na service après vente ci Colobane buy liggéey 24 heures sur 24 7 jours sur 7 ak équipe mobile bu xarañ bu jàmbaare buy dem nag fépp ci Sénégal service après-vente boobule day am ak yéen ay contrat d'entretien di leen di gunge ci seeni montage seeni réparation wala entretien appareil bu mu mën di nekk Digital Store votre partenaire de référence téléphone bi moo di 33 842 61 38 site web www.digitalstore.sn boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV dangeen ngeen di bés fu ñu bind abone bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën am mboolem vidéo yi fi bàyyikoo